لا نشكو إله الورى أمرا وما إلنا إلا إليك التجا دهرا لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إلنا إلا إليك التجا دهرا لسنا نخاف الضر ممن سواك لا كذلك لا نرجو سوى يسركم يسرا وأهل الدنا أغنت عليهم شروفها وما منه إلا أخوك بذي الحر سيأتي فليكن ذا ورى غفران فمن مشتك فقرا ومن مشتك بلا ومن مشتك دينا وذا منه أحرى فكن دافعا شكوى الجميع وعمهم بلطف وكن ربا بنا رؤوفا وكن ربا رؤوفا بنا برا فكن دافعا شكوى الجميع وعمهم بلطف وكن ربا رؤوفا بنا برا ويا عالما منا السرائر فاشكرا معائبنا وانشر لنا ربنا الذكرى وقوف ذليل قد وقفنا ببابكم وإنا لنرجو منكم الفتح والنصران لقد ضاق حال الوقت واشتد أمره ففرج إلهي كربنا وادفع الضراء وبارك لأهل الشيخ في الدين والدنا وأول انكسارا منهم سرمدا جبرا وبارك لأهل شيخ في الدين والدنا وأولي الكسار منهم سرمدا جبرا عليه رضا الرحمن في كل ساعة بمقومه الثاني أجل الورى قدرا عليه رضا الرحمن في كل ساعة بمحكوم السامي أجل للورى قدرا عليه صلاة الله ثم سلامه بآل وأصحاب له أكمل الأمر عليه صلاة الله ثم سلامه بآل وأصحاب له أكمل الأمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi sant yàlla sunu boroom di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyoo di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di yëkkati sunu kàddu ci kaw Euh, ndigal xam ngeen ne sëriñ abul baraka mi nga xam ne moo mooy wat buntu kër Cheikh Mouhamadul Fadil dafa ànd ak njabootu ak Cheikh Mouhamadul Fadil dem Poroxaan fekki fa kilifaam muy a Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér mu joxe ndigal loo xam ne moom la sëriñ Abdul Fattah miy jëwriñam te xaw temm ci di ca soññee di ca ñaaxe ngir ñu defal ko sëriñ bi na mu ko bëggee ay rakkam ñoom ñëpp nag fab liggéey bi dénkaat ko seen rakk mu sëriñ Ahmadul Badawi mu ànd kook nag njabootoog Cheikh Mouhamadul Fadil gépp ànd ak daairatu ahfaadi Cheikh Mouhamadul Fadil nga xam ne seeni Cheikh Colle mooy seen kilifa moo ki rakkam yëpp ak nag daairatu turandoo Cheikh Mouhamadul Fadil ak dongo yi nga xam ne ñooy dongo yu kër Sëriñ Fàllilu ñu àndandoo ngir jëfal sëriñ bi loolu mu santaane xam ngeen ne bis bii nu dëgmal di bisub lislaam bu ñëpp bokk waaye nag nun waa kër Sëriñ Tuubaa ñu amaata nag xaas suñ xaasi bopp xaas ji mooy feeñ gi ci Cheikh Mouhamadul Fadil feeñ Cheikh Mouhamadul Fadil moomu doonoon koo xam ne yërmande la feese woon dell jubóog boroomam lool moo tax sëñ aboo moom Cheikh Mouhamadul Bachir yëkkati léegi ay bayit yoo xam ne mu ngi tàmbalee li xayrika la nashku ilahil wara ilahal wara amra euh, muy bayit yoo xam ne booba jamono dafa dafa nëx jamono dafa naqari bekkoor am njéeréer am sëriñ fàllu yëkkati bayit yooyu di ca waxante ak boroomam di ko ca ñaan mu teggi tartar ya ak tiis ya xam ngeen ne jamono jii nu toll itam fu nekk ci biir àdduna ñu ngi jàmbat tawat joo xam ne dafa tasaaroo ci àdduna te réew yi nga xam ne dañuy réew yu dox jëm ca kanam jekku àdduna man seen bopp fa la gën a bare ñuy ragal nag réew yi nga xam ne seenu ndox dafa yeex mënuñu seen bopp bu fa tàbbi woon mën naa ëppi loxo ñu ngi wax sax na naan xawma tey am na ab tubaab bu dugg Sénégal boo xam ne da ko àndaale kon nag na kilifa yëpp ñaan na njaboot gi ñaan na dongo yi ñaan sunu boroom mi nga xam ne lu mu faj mu faju yàlla na ko yàlla saafara yàlla na ci Sénégal mucc yàlla na ci réew yi lislaam yëpp mucc waaye yàlla na ci àdduna sépp mucc ci barke bayit yooyu nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Fadil defoon doon ca waxanteeg boroomam xam ngeen ne bis bi euh, yeesal wëllëre wëllëre woo xam ne du màggat mukk waaye dañ koy feddali mu doxoon diggante sëriñ Fallilou ak i bokkam doxoon diggante sëriñ Fàllilu ak mag ñi nga xam ne moom la leen sëriñ Touba booleeloon def nañ bis bu mel nii kër sëriñ Mor Mbàkke doj doj sëriñ Mor doj def nañu ko kër sëriñ Mbay Sàll def nañu ko kër Alaaji Abdou Mbàkke ri diis def nañ ko fu bari mu jaadu lool nag ñu defe ko ci njabootug Serigne Ousmane Bousso moo tax bi mu duggee seenum nopp mu sedd seen xol lool ñu ngi nii teew la ko dale ca soxna Daba Bousso mi nga xam ne mooy taawam ak i rakkam sëriñ fàlloo ngi nii toog waaye soxna moomi Bousso Abbas mi ngi nii toog ak nag mbusoo ba gépp xam nañ ne teraanga bu tàbbee kër kër sëriñ Ousmane Bousso tàbbi na ci mbusoo be gépp moo tax ñoom ñëpp ñu ngi ni teew sëriñ Fallou da doon nit koo xam ne dafa bëgg mbokk daa ko jokk daa ko rafetal ni ko yàlla santaane mbokk mën naa defal mbokkam lu nekk ma nga tollu ci rek pas-pasam fa mu tollu ak yéeneem lu mu toll xam ngeen ne dara gënt a rëy nubu watu nubuwa ak risaala dara gën a ko rëy te te am na mbokk moo xam ne moo ko fàggul mbokkam yontu yàlla Moussa ba ko sunu boroom yónnee dafa wax ak sunu boroom ne ko wajaal lii waziran min ahli haaruna axi bi ushdud bihi azri wa ku fi amri dana ko lii nga ma defal dama bëgg nga defal ko sama mbokk mu di Haarun dama bëgg mu jàppale ma ci mission bi nga xam ne moom nga ma yónni su ko defee dana dana gën a jàppande kay nu sàbbi xaka kathiran wa nazkuraka kathiran innaka kunta bina basira yàlla na ko qaala qad uutiita su'laka yaa Muusa ne ko li ngay sàkku li ngay ñaan defal naa la ko kon yonti yonti yàlla Haarun su ko yàlla yónnee mbokkam mu yonti yàlla Muusa moo ko ko fàggul moo ko ñaan sunu borom kon mbokk mën naa fàggul mbokkam cër bu nekk sëriñ fàllu nag àndoon ak i bokkam ñu man caa ràññee nag tey ki nga xam ne bis bii bisam la muy sëriñ Ousmane Bousso sëriñ Ousmane Bousso ñu bari xamuñu ne sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moo ko jox sëñ Fallu moom naka jekk sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom la loon waaye sëriñ Fallu bi mu toogee jataay bi mu toog am lu mu soxla loo xam ne ku mel ni sëñ usmaan moo ko man ba mu ca diisoo ak sëriñ Abdul Ahad sëriñ Abdul Ahad moo yëkkati sëriñ Ousmane jébbalaat ko Cheikh Mamadou Fadil ne ko li nga soxla de dana ko man mu teg ko ci wetam doon ku muy waxtaanal waxtaanu biir néeg lu muy tàbbi xelum sëñ Ousmane doy na ko sëkk lu muy génn xelum sëñ Ousmane doy na ko sëkk sëriñ Sidi Mbacke wax na ko léegi muy nit ku am bàmmeelu biir ndax jonjoo gi mu jonjoog mu Mahamadul Fadil taqoog moom xam ci moom lu ñu bari xamut waaye néew na looy dégg nettalikat yi nga xam ne bari na lu ñuy nettali bari na lu ñuy dégg néew na looy dégg ñu ne sëriñ Ousmane Bousso nee na sëñ Fallou nee na te lu ñu xam ci sëñ Fallou moom xam na ko waaye nag doon bàmmeel am bàmmeelu biir di sàmm la mu war a sàmm moo tax kenn musu ko musu koo dégg mu wax te xam na lu mu wax loolu nag ñii ne ci wetu kilifa yi war nañ koo jàng ci sëñ Ousmane Bousso mu do doonoon nit koo xam ne ku teey la xaj na gone yu ndaw yi xamuñu ko waaye ñi ko xam xam nañ ne ku teey la ku dal la ku lewet la lool ku set wicc ku xay la lool ku miin sëriñ fàllu la te yóbbu ko bu waxtaan jotee mu waxtaan ak moom wax ko lam ko war a wax boo ca noppee noppi na ca Abdul Aziz Si Dabakh ak ñi mel ni moom ñëpp kër sëriñ Ousmane fa lañ daan dal bu dee biir dëkk bi képp ko soxla sëriñ Fallou tam ci moom ngay jaar ku mel ni sëriñ Abdou Lahad su mosaa ñëw ci moom lay jaar ne ko dama soxla sëñ bi mu bàyyee ko ca këram dem kër sëriñ bi toppatoo ba xam ne mën naa gise mu ñëw ne ko nee na nga agsi kon foofu la féete woon sëriñ Fallou sëriñ Fallou nag doyloo ko ci biir ak ci bitti ak doyloo munte weesu lu muy mos lu mu néew néew néew bala koo seet sëriñ Ousmane dafa teew attaaya sax sëriñ Ousmane day teew bu dee li ndaw ko ndaa yi def bëccëg sëñ Ousmane day teew bu dee tam li ñuy def guddi sëñ Ousmane day teew kon lépp loo xam ne sëñ Fallou da cay xéewlu sëñ Ousmane day teew bokk ak sëñ Fallou waaye nag day mbokkum sëñ Fallou moom li baayam mbokk ak sëriñ Touba rek loolu bokk sëñ Fallou ne xam nga ne sëriñ Cheikhou Bousso mii baayam mooy taawu sëriñ Bousso bi te sëriñ Cheikhou ku ne xam na ne sëriñ Bousso bi ak soxna jaara ñoo bokk lépp waaye waajuru mu jigéen soxna Faati Balla tam day doomi Maam Balla Aysa sëñ Ousmane mii tam loolu bokk ak sëriñ Fàllu ndax baayam ak soxna Awa Bousso ñëw bokk sëriñ Bousso bi waaye waajuram wu jigéen soxna Roqaya Mbàkke ak sëriñ bi ñoo bokk ñoo bokk sëñ Mor Anta Sali wax naa ne waajuram sëriñ Cheikhu na mu demee woon ak sëriñ bu mag bi rek noonu la deme ak sëriñ Fàllu ndax soxna Roqaya Mbàkke mii waajuram Mamour Anta Sali moo ko meññ sëñ Cheikh tam mi waajuram ak soxna aw Bousso ñoo bokk sañ Bousso bi kon day mbokkum sëriñ Fallou sëriñ Fallou nag doyloo ko yëkkati nag doomi boppam jox ko soxna sooda xam ngeen ko doyloo ko daan fab tam ci taalibe yi di ko jox muy mottali seenu bi yar tërbiyee leen sëñ am di faal ku ne xam na ko moom léppam sëñ Ousmane Bousso la ak nag dongo yi nga xam ne sëriñ bi moo leen jébbaloon sëriñ Ousmane ku mel ni Alaaji Fall defe naa mi ci mbooloo ku mel ni Bàcci Ñang yaakaar naa mi ci mbooloo mi ku mel ni Saaliwu Kamara ku mel ni Mbay Jaw ak ñeneen ak ñeneen kon Serigne Fallou da ko doy la woon ba jox ko njabootam waaye da ko doy la woon ba dongoy Serigne Touba yi nga xam ne defaru bëgg a defaru moo leen fa indi woon daana ci fab di jox sëñ usmaan ngir mu àggale seen tarbiya ñu ngi may wax ne ma bi mu demee ba ci mu jëm bis bi muy génn àdduna dafay yónni bàyyi sa njaay gede ne ko demal ca sëriñ Abdul Xaadir ne ko moom lañ ma dénkoon de jaanam nag wàcc na taxaw na ma ci biir ak ci biti waaye nee ko maa ngi koy dénk sama bopp su ma fi bàyyi ko na ma taxaw bàyyi sëriñ Njaay ba mu demee wax ko sëriñ Abdul Qadir mu ne ko incha allah nee ko maa koy taxaw maa koy taxaw bàyyi sëñ Njaay dem ñibbi këram ne bu xëysee wax ko sañu Ousmane Bousso ca guddi ga la usmaan Ousmane Bousso wuyu suñu borom sëñ Abdou Khadre defal ko lam sàkk woon ci moom mooy moo ko taxaw kon nag ñi nga xam ne dañuy ne ci wetu kilifa yi nañu roy ci mag ñii boo nekkee ci wetu kilifa da doon ku yiw sunu jamono ji sunu jamono ji bari na ñu ne ci wetu kilifa yi ñoo xam ne lépp lu waay bëgg ca kilifa ga rek ci ñoom ngay jaar bu dee nit yi àdduna ci ca ñoom ngay jaar bu dee caaxaankat ci ñoom ngay jaar bu dee boroom alal joo xam ne defe na ne alal man alal man na lépp ci ñoom ngay jaar ba nga xam ne day mujj bunt yi day bare bare bare ba dootoo xam fooy teg sa tànk kon képp ku ne ci wetu kilifa lay sawa warugar mooy danga koy ña ñag da koy aar di ko jàppale naa ko nii dey buñ ko defoon defe naa ne dana gën a baax julli sax bu imaam juumee daga naa ko subhanallah kon soo nekkee sa kilifa da nga koy jàppale di seet la gën a baax la gën a rafet nga di ko ko wan wan waaye bu fekkee alali àdduna mën naa tax mën na laa jënd ba jaar ci yow ba àgg ci sa kilifa booba royoo suñ Ousmane Bousso royoo bay suñ Njaay Gede royoo suñ Amsatu Mbàkke royoo suñ ab lakaram royoo mag ñu baax ñooñu ñoom day dañ doon ñàkk seeni kilifa di leen jàppale ci biir ak ci bitti loolu nag mat naa delloo si bu baax a baax a baax koo xam ne bu toogee ci ëttub sëriñ Ousmane Bousso di fa yëkkati kàddu war naa am muy sëriñ Afeye Ñang moom sëriñ Mouhamadou Ñang moom sëriñ Afeye Ñang suñu Afi Ñang ci ëttub suñu Ousmane Bousso su fi yëkkatee kàddu war naa am suñu Afi Ñang ci rajab weeru sëñ fàllu bu fa yëkkatee kàddu war naa am ana suñu Afi lu muy waxtaane Cheikh Mouhamadul Fadil wa dawruhul faal fi tawtidi salaam al watani fi tawtidi salaam al watani mooy sëriñ Fallu ak taxawaayam bu rafet ba taxawaayam bu rëy ba taxawaayam bu mat sëkk ba ci jëmbat ak suuxat jàmm ci senegal lan la sëñ Fallu jëf lan la sëñ Fallu wax ban taxawaay la taxawu ngir jëmbët ak suuxat jàmm ci biir senegal loolu mooy li nga xam ne sëñ Afi Ñaŋ moom la war waxtaane ak nun kon nan ko teewlu ndax kii wax moom soo ko bëggee dimbale da ngay xerewlu rek rawatina ay kilifa ñoo toog ci sunu kanam kon sëriñ fi Ñang bismillah